بدأت بسم الله ذي والجلال أصلي على المحبوب ذي المجد والعلا ثناء جميل للنبي إمامنا وأن إمام الله ذو الفضل والعلا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ginnaaw bi ñu sante yàlla bu baax a baax julli ci sangu-sang yi Seydina Mouhamed alayhi salaatu wasalaam dañuy nuyu ki nga xamante ne moom moo di la xalif général des Layènes Seydina Mouhamadou Makhtar Lahi ak njabootu Ahlu Beyti Rasul gi yëpp noonu la ñuy jaaree daal di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi di leen ziar bu baax a baax di am mbégte teewaat fii nii eh, ci waajtaay li nga xamante ne moom moo di 144e anniversaire de l' appel de Seydina Limamou Lahi alayhi salaatu wasalaam ñu fas yéene ànd ak yéen ci ay plateau yu am am solo ngir xamale leen li nga xamante ne moom moo di woote bi plateau bi du ma si wet benn yoon dama koy bokk ak sama naataango sama doomu ndey soxna Aji Ndey Kebe daal di lay bàyyi rek nga nuyoo. maa ngi lay nuyu soxna Sirifa di la ziar bu baax di nuyu ñëpp ñu ni seetaan comme ni nga ko waxee rek di ñaanal sunu xalifa Mamadou Makhtar yàlla bàyyi ko fi ak bépp xalifa ci réew mi di nuyu ñëpp ñu seetaan ci waajal appel bi nga xamante ni moom la nekk di la nuyu bu baax di nuyu sunu techniciens yi. jërëjëf soxna Adji Kébé ñu leen di dalal bu baax a baax mbokk ñuy seetaan à travers Lou'Bess TV le chemin de l'information si émission bi nga xamante ne désormais dañ ciy ànd ak yéen saa su nekk mu di yoonu woote bi soxna Adji Ndeye Kébé ana lan la waa lu euh, Lou'Bess TV daal di préparé ci ay plateau pour jagleel ko li nga xamante ne moom moo di askan wi jëm ci li nga xamante ne moom moo di woote bi commencé na lu am solo ndax dëgg yàlla loolu appel ñun duy ne rek kenn mënuñu ci mhm. Lou'Bess TV lu ñëw dañ ciy bay waar waaye nag waru wàllu diine moom yàlla daf ñu cee may ba tax na appel bi ñu ngi ñu ngi ci def ay plateau yu am solo suñ nga xam mooy ustaas yeeg tàggkatu fu nekk dem nañ fa setal yeeg yëpp image yëpp ñëm ñu ngi koy teg wax dëgg yàlla ba tey nag doxantu woon nan ba ngoor daal di gëstu dama lay jox kàddu gi rek nga daal si ñëwaat waaw kay euh, ci loolu nga wax sax si la ñuy teew ndax kenn mënul wax sang bi alayhi salaatu wasalaam te jaaroo ci li nga xamante ne moom moo di bërëb bu tedd boobu di ngoor ngoor nekk plus précisément fi nga xamante ne moom moo di xunt bi comme yow yaa ñu demoon defal ñu ay recherche dama lay bàyyi rek euh, nga digteel askan bi li nga xamante ne yow moom nga jëlee ci ay recherche yi nga doon def. waaw soxna Sarifa dem nan ngoor loo gis rek njëlbeen la da cee am solo. Mhm. ku ni démb ni tey Seydina Limaamu ku ni démb dina tey ndax lim def démb moom la def tey. Mhm. moom moo ni woon buñ ko jëncee ñetti fan moom Seydina Limaam alayhi salaam dina génn ak ruwam ak leeram ruwam googu na ba mu génnee leer wër na fu ne muy leer gi nga xam ne tey moo dugg ngor ca xuntama moo tax bu ñu defee Cambérène yoor yooru Cambérène ci maam Seydi gontu ngor doogu mujje ci moom ñoom Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam ngor googu nag leer ga yàgg fa lool su suñuy nopp nee nañ junni at def na ko fa moom Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam ngor bi nga xamante ni mooy sawu saw ya naa Limaamu fa la feeñe yàlla def ngor ndox leer ba nekk fa sax fa lool muy wër kan moo ko war a jur moom naa Limaamu laata nag mu dugg foofu ngor tànk lébu ya dañ daan wooyee fi nga xamante ne mooy palaas boobu tànk tudd woon ngor leer ga fa dugg tey moo tax Seydina Limaamu tudde ko ngor leer googu nag def na fa junni at di xaar kan moo ko war a jur ndax kenn naa Limaam dafa bëgg jigéen ju am sutura mooy doon yaayam ku sell ko maandu yàlla dogal leer googu tey mu dugg ci jigéen ju sell di maam ko mëndooy lébu yi nag bu ñu daan dem ngor googu tànk lan ko daan wooye niki gore gore biir lañ ko daan wooyee waaye Seydina Limaam dañ ne jik boroom jikko boroom jikko ak boroom pax ba mu ñëwee ci ngor moom leer googu sax fa lool moom Seydina Limaam alayhi salaatu wasalaam mhm. ba mu fa duggee ngor daf ko soppi muy ngor ak gore mu ànd ak ñaar yooyu te ñaar yooyu dañ ko baaxoo ci nit moom Seydina Limaam mi nga xamante ne moo soppi dëkk boobu di Ngor ñu ko daan wax tànk suñu mbokku lébu yi. Mhm. li di gore mu soppi ko ndax biir lañ ko daan wooye mhm. moom moo fa def turu gore. mu mhm. jikko ak borom day ñëw. moom Seydina Limaam leer googu def na fa junni at. muy ruu nga xamante ne moo ne woon du def ñetti fan bàmmeelam yàlla génn ko fa muy wër. ba mu wëree nag feeñ ca sawu saw ya moom Seydina Limaam alayhi salaatu wa salaam muy leeram gi nga xamante ni moo tax ñuy ziyaare foofu. li ma lay wax rek Seydina Limaamu ay mbiram dara nëbbuwul. Mhm. boo ñëwee ba ngoor di nga gis fam teg tànkam ba ndax daanu teg tànkam ci suuf mu marke li mu def nag tey jii tànkam boobu mu teg ngor mu marqué daka amoon màkk moo tax la woon màkk moo newaat fii muy sawi sawi ya moom Seydina Limaamu leer ga yàggu fa lool lool muy wër ki nga xamante ni mooy way waajuram. Mhm. waaye yàlla dogal. leer gi ba muy génn di dem nee na dafa dajeek jigéen ji nga xamante ni ba muy wàcc di sangu ci géej gi ak ay moroomam dafa solu solu jigéen solu bu yiw lool ci biir mbooloo moom kese nga koy gis Seydina Limaamu di ko xool di ko xool ba yàlla dugal fa leer ga leer googu nag tey moo doon ki nu gëm moo doon ki nu yaakaar muy sëdu awalina wala axirina te maam Kumba Ndooy moo ko ëmboon mooy mu nga xamante ne mooy yaayam ju sell ji nga xam ne daan lañ ko wooye Kumba Jagata mhm. ñu ne ñu dem ba gëstu Kumba Jagata ba lan moo ko waral ñu ne mhm. daan jag-jagee ay ñam mhm. di togg daan teg lu mel ni mbana ñaar fukki cin ak ñaar da daan di yóbbu te ku mu dajee rek dalay teral mhm. nee nañ yaay jooju la doon wër moom Seydina Limaam moo tax leeram duggoon fa ba tey ñu jur ko mhm. te xunta moomu am na ca màkk xunta moomu ca kaw la féete waaye bii dafa féete ci suuf nga xamante ni kon xunta mi de mi ngi ma nga màkk waaye mi ngi ngor Seydina Limaam lu ma wax rek def na ko alayhi salaam mhm. ba tax na xunta mu mu jenc ngor leer googu nekk xunta moom dafa feeñoon màkk ñu jàng alxuraan xam nan ko ci xaarul xiraa ca kaw la xunta ma féete tey nag xunta moom moo nekkaat ngor leeram googu dugg fa ci sawu saw yi ñu koy wër di ko wër waaye leer ga foo la nekkoon waaye wër leer ga la tax mu yàgg fa da doon wër ku ko jur comme ni ma ko waxee duma si ñëwaat Seydina Limaamu wàcc ci maam Kumba Ndooy maam Kumba moom mooy way juram mi nga xamante ni daan na teral ku nekk. Mhm. ku nekk teral nañ ko moo ñu indil sang bu tedd ba nga lay salaatu wa salaam. Mhm. kon bu nee Seydina Limaamu lan moo tax ñu jël ngor di fa dem. Mhm. appel kon du jaas. ndax leer googu def na fa junni at. ba moo waral ziar bi nga xamante ni chaque jour dañ ko fay def. moom ngor nee nañ ngor benn bi booy dugg. sawu penku la lay féete waaye booy génn sawu ngay féete. kon sawu saw yi ñëwaat na foofu mm-hmm. moom Seydina Limaam alayhi salaatu wa salaam. Mm-hmm. kon kenn mënu wax rek bàyyi ngor ndax dangay ngay dégg sa oustaz ndongo naan ngor fa la lépp a tàmbalee. Mm-hmm. ba max tax ba moo tax leeram googu ba mu fa ñëwee. mu soppi fa. ndax li ma la wax rek lébu yi dañ daan wax tànk. gor ñu naan biir. Seydina Limaam mooy ki ko changé ba mu ñëwee def ba ngor ngor ak gore. moom moo ko changé moom Seydina Limaam alayhi salaatu wasalaam ban ko gëstoo. Mhm. am nañ ci lu leer naññ ndax mhm. leer ga yàgg na fa lool dem nañ si papa aboo wax dëgg yàlla mu waxtaan ak ñun gindi ci lu baree bari bari. Mhm. ba tax na leer gi nga xamante ni kon looloo tax ñu koy ziar chaque appel bu defee yor-yor gi ñu gontu ngor. ngir xentu leeram googu ba tey nag ñi ñu dem di ziar ndax tànkam baa nga fa moom li ma la ko waxee rek alayhi salaatu wasalaam fa mu tegoon tànkam ba ca màgg moo ñëwaat fii rek moom li ma am kumbandoo yi mi nga xamante ne mooy xaagaanu yàlla gi li ma koy waxee xeetub lébu ku ko séddoo gañe mhm. alayhi salaatu wasalaam kon mhm. looloo waral ñu dem naan ngor soxna Serifa ah macha allah gis ngeen euh, recherche yi nga xamante ne soxna aji def na ko ak ni mu feram fàccee li nga mhm. xamante ne fa la jëlee foofu ak leer gi ni mu fa nekkee ba ni sama borom defee mu dugg ci soxna su tedd jooj ji soxna Coumba Ndoye mën naa la laaj nan la ñuy ziyaare bërëb bu tedd boobu noonu di ngoox laab alay salaam dafa laaboon ndax foofu fu leer goo fa mu dugg du leer neen de Seydina Limaam alay salaam mhm. boo ñëwee na nga ba seel la julli dugg ci xuntami ziyaar mhm. ndax borom dafa laaboon mhm. ba su ba mu xamee ni du war na génn dugg ci jigéen jooju di Maam Coumba Ndoye moo tax jigéen ju gu laab la dugg jigéen ju maandu gu tedd moo tax ku fay dugg na laab mm-hmm. laab moo fa war a dugg war a sell mm-hmm. war a dal dugg ziyaar si nga xamante ne mooy leeru Seydina Muhammad alayhi mm-hmm. salaatu wasalaam duma ko tàyyi wax yàlla moo ko dogal foofu la leer gi nekkoon ba keroog muy génn ba tey bàyyiwaat fa mbóot ya ba tànkam baa nga fa Seydina Muhammad fa mu tegoon tànkam ba màkk feeñaan na fii ndax seydinaa Limaam léppam da nga koy gis léppam da nga koy gis yàlla moo dogal loolu lépp danga koy teg sa bët moo waral tànkam boobu ku ñëw rek mënoo ziyaar ba ngoor doo fa génn ndax tànkam boobu ku fa toog fotowu fa teg fa sa tànk mooy dangay dangay wanne dangay tetalu ci moom topp ay tànkam mhm. ñaan yàlla làpp ak sell moo tax ku fay dugg dangay laab wedd jàpp ba sell dugg ci biir foofu mooy ngor foofu mooy ngor mu di bërëb bu am am solo waaye bërëb boo xamante ne boo fa duggee tranquillité bi nga fay fekk rek mm-hmm. ak boo fa tegee sa tànk leneen ngay yëg ci sa biir yaram ku ci mel ni Ahmadou Diallo xam naa ne moom xam na bu baax a baax li nga xamante ne moom moo di solos euh, bërëb boobu mm-hmm. noonu mm-hmm. lan nga ñu mën a wax rek ci tënk ci ki nga xamante ne moom moo di Mame Alassane Laye caw nga xamante ne moom moo di wayjuru euh, Seydina Limamou Laye bu góor alayhi salaatu nee naan yaay ju ku ku yàlla tànnal yaay ju baax tànnal la bàyyi bu baax muy maam Alassane mi nga xamante ni mooy way wayjuru Seydina Limaamu mi nga xamante ni moo wootee. Mm-hmm. maam Alassane nag nee naan ci dundam ku dal la woon waaye ku jàmbaare la woon. moo tax yàlla ni mu dogal limam limaam maam ku mandooy sella noonu la sella woon ba jur ki nga xamante ni mooy Seydina Limaam alayhi salaatu wa salaam. Mm-hmm. moom nag nee na yàgg nag moom waaye ba woote bi desee ñetti fan. dafa def mu wuy ju boroomam. waaw kay euh, soxna Adji Kébé ci noonu sax la ñuy duggee comme appel la ñu wax te gis nga ci taarix nga tàmbalee ci li nga xamante ne moom moo di xunt bi mm. ñu fas yéene wàcc ci ki nga xamante ne moom moo waral woote bi ndax mm. dañ naan euh, bés bu bés bu taxaw rek am na lu tax mu taxaw li nga xamante ne moom moo di woote bi sang bi Seydina Limaamu Laay alayhi salaatu wasalaam moom moo woote fi nga xamante ne moom moo di tefesu géej ci noonu la ñuy jaaree dem jëli élément bi nga xamante ne Maguette Thioub defal nañu ko ci euh, góor gu tedd googu doonu rek ñu daal di dikkaat ci plateau bi très rapidement ñu daal di koy commenter régie bu baaxee rek ñu daal di dem ci vidéo bi dikkaat ci li nga xamante ne moom moo di bi Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam mi ngi génne àdduna ci atuk 1843 waaye laata muy génne àdduna aw turam mi ngi jógee ci marabu tukulóor Mouhamadou Ba village bu Fuuta ci ay témoignage bokk ci bu Cheikh Abdoulaye Sylla ay mag yu bokk ci collectivité lébu ñoo daal di woon amal benn visite fële ci village bu Fuuta mu bokkoon ci itam maam Alassane Thiaw mi wéyjuru Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam marabu tukulóor bi daal di leen xamal ne Limaamul Mahdi mu ñëpp di xaar ci ñoom lay wàcc daal di leen itam jox ay tegtal ne ku ci am doom bu góor na nga ko dippee limaamul mahdiyu waaye jamonoy dox fukk ak ñeent ak ci ndaw yooyee ñu dippee woon limaamul mahdiyu limaamu maam Alassane Thiaw ak soxna Kumba Ndooy rek moo ci dund ba âge adulte limaamu moomee sax moo nekk borom woote bi nga xam ni ren mi ngi tollu ci téeméer ak ñeent fukk ak ñeent limaamu ab enfance am nekk ku ràññeeku loolu ci ab jikko ju rafet tellte waaye itam nekkoon ab tab lool nangoo liggéey comme imaam alayhi salaatu wasalaam daal di def aussi murdisaat yoo xam ne kenn mënu koo lim 40 ans yi jot Seydina Limaamu daal di taxaw benn dimanche woote wooteem bii muy aji boo daayalaahi ñetti fan gannaaw ba mu ñàkkee way juróom bu jigéen di maam Kumba Ndooy laay coow la daal di bëri biir yoof ñii naan dem ko yaay ja moo ko jàpp waaye teewul woote bay dox commencé daal di répandre ci biir réew mi waaye way weddi yeeg seen i pexe ñu daal di koy jaxasee tubaab yi loolee waral sax gàddaay bi comme bépp yonent mujjewul antu ndax dine Seydina Limaamu gi mujje naa law ba mu ñibbi wuyu ji boroomam daal di nuy bàyyil kii di taawam xalifaam Seydina Isa alayhi salaatu wasalaam mu daal di koy wutu jullee ko ci atuk 1909. jërëjëf soxna Maguette Thioub ci jàngat bu ama am solo bi nga xamante ne defal nañu ko duñu tàyyi benn yoon di ko jaajëfal ci xam-xamam bu sell ci baatam bu sell yàlla na sama borom wéral baat bi bu baax a baax aji kebe lan ban commentaire ngay def par rapport ak li nga xamante ne moom moo di portrait bi ñu Maguette Thioub defal ci Baye Laye alayhi salaatu wasalaam waaw jaajëfal màgget rek di ko jaajëfal wax dëgg yàlla ndax sang bi nee naa la géej la rek du jeex lu waay wax si moom rek des na. nim ni mu ko defee noonu indi na ci lu leeral naañ ci xamante ni mooy ñi ni seetaan ak ñi ni déglu bëgg a xam lool kan mooy Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam soxna Maguette Thioub nag dem na defal ñu xamante ne mooy portrait bu sell lool ci nga xamante ne mooy Seydi Awalina wa Seydi Axirina di ko jaajëfal bu baax Serigne Fall li ma la wax rek Seydina Limaamu kuy ñëw pour changer ñëpp la wooteem bii pour jubal la. ndax dafa ni nit ak jinne la woo mm-hmm. pour ma am dafa war a soppi jukko yi mm-hmm. moo tax soppi na leen boo gisee jigéen ji tudda yàlla këram la ëpp léegi ñu ngi ciy roy mm-hmm. jigéen góor liir bu juddu ñu xarfal la këram la am ba tax na léegi ñu ngi ciy roy kon kooku changé na jukko yi li ma la wax rek li mu changé biir changé fi nga xamante ne mooy tànk muy ngor muy gor ak ngore. fan ba mu ko changé noonu la changé jikko yi loolu lañ doon xaar ci moom Mahdi mm-hmm. yu dafa war a changé. Mm-hmm. kon ba mu ñëwee changé na moom alayhi salaatu wa salaam changé na jikko yi ñu ngi roy la ñëpp di roy moom alayhi salaam. alayhi nu lu bëri bëri par rapport ak li nga xamante ne moom la fi euh, moom lañ fi fekkoon ci taarix lu ci mel ni rek tamit. li nga xamante ne moom moo di xamb yi. Mm-hmm. changé na ci lu bëree bari mën nga dikkaat ci loolu rek. très rapidement waaw li nga xamante ne mooy xamb yi comme ni ma la koy waxee nee naa la kuy changé la ba bu ñëwee jëlee na loolu yëpp wax digg yàlla du ma ni des na ndax nit ñi ku nekk ak la nga gëm. Mm-hmm. waaye si Seydina Limaam da ko dàq. alayhi salaatu ba mu ñëwee toj xamb yëpp. boo ko gisee suñu mbokk léb yi loolu moo doon kii bi ci moom mhm. waaye ba mu ñëwee lépp la dindi moom alayhi salaatu wasalaam lépp luy turoog lépp luy sabar lépp Seydina Limaam da koo dàq ngir leen ñu mooy si yàlla jublu ci yàlla nga xamante ne moo ñu sàq te kenn moom rek moo fi nekk Seydina Limaam loolu la doon xeex ba tey waa këram nàmpatal nañ ci dudd nañ ci xam nañ kan mooy Seydina Limaam alayhi salaam xam nañ ko bu baax baax et ñi ngi sant suñu borom bu baax a baax euh, li nga xamante ne moom moo di muxjisaat yi nga xamante sang bi alayhi salaam def na ko ci tënk ana lan nga ñuy wax. Mm-hmm. Seydina Limaamu alayhi salaam muxtisaat yi bëri na soxna Serifa ndax nee naa la ba mu randalee géej ba tey géej ñëwul. Mm-hmm. ba kaw lébu yi leen di ko demal nga randal géej gi mi ngi ñuy sonal foog ni du ko randal moom Limaamu alayhi salaam ndax ngir bëgg nañ ko lalal ko piège waaye yàlla du ko mm-hmm. taxaw. ndax kooku mooy yaakaaru jaam ñi ba mu ñëwee nag randal na géej gi ba tey géej gi ñëwul seen naa limaamu ci loxoom boobu nga xamante ni bu la tegee yow ki feebaroon da wér waaye loxoom boobu la daan teg sa bopp nga solu mhm. bu ko dindee nga fàtte lépp mhm. moom Seydina Limaam muxtija ji bëri na loolu alayhi salaam mhm. jërëjëf soxna Adji Ndeye Kébé yaakaar naa ne yegg si nañ fi nga xamante ne fa la ñu war a li nga xamante ne moo di bile plateau joxante rendez-vous rek ëllëg incha allah ñu fas yéene waxtaanee nekk wala ñu dugg ci li nga xamante ne moom moo di njabootu Seydina Limaamu Laay alayhi salaatu wasalaam du ñàkk itam ñu amaat yeneen plateau yoo xamante ne dañuy waxtaanee li nga xamante ne moom moo di thème bi mais itam waxtaan ci li dugg ci biir li nga xamante ne lan moo waral appel et nan la ñuy appelé ma daal di lay jox kàddu gi rek nga daal di tàggatoo ak askan wi ñu doon seetaan. ba ëllëg incha allah. yi dina bari macha allah ndax Seydina Limamou nee naa la moom rek. buñ buñ ci xëyoon fii ba appel du jeex. Mm-hmm. waaye ni ka mel la ñuy dugg ci ay njabootam ku ci mel ni maam Seydi maam Ndion maam Babacar. Mm-hmm. ku nekk rek yàlla may na la loo xamante ne mën nañ si yow wax si yow bis ndax yàllaa leen ko defal. Mm-hmm. ba tax na plateau yi mi ngi ñëw nan ko xaar ci Lou'Bess TV. ak ñëpp ñi xam ne ñu ngi xaar di ñu seetaan. plateau yaa ngi ñëw ànd ak yéen ci appel bi nga xamante ni moom la ñuy wàcc saa su nekk ba fi mu ne nii li ci des bareetul. dañuy wax rek waaye li ci des bareetul. ba tax na ñu ngi jaajëfal ñu ngi doon seetaan ñëpp ak sunu technicien yi ci mel ni Aline libaas ñoom ñu ngi leen di jaajëfal ku lim jun màgget yu ba faatulaay mm. yow di la jaajëfal soxna Serifa di la jox di daje rek ba beneen plateau incha mm-hmm. allah jërëjëf cant ak ngërëm ñeena la bu baax a baax soxna Adji Kebe la àndaloon ci li nga xamante ne moom moo di premier numéro yoonu appel bi ñu daal di fas yéene rek mottali incha allah daal di fas yéene waxtaanee ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñoo di njabootu Seydina Limamou Laye alayhi salaatu wasalaam comme niñ ko waxee waaye itam lépp li nga xamante ne dafay tourner autour de l' appel dinañ ko fas yéene faram fàcce fii nga xamante ne moom moo di yoonu appel bi mm-hmm. di leen jaajëfal bu baax a baax mbokk yi nga xamante ne yéen toogoon di seetaan yoonu appel bi waaye itam ñu daal di jaajëfal bu baax a baax équipe technique bi ñu ondoloon soxna Fatima mi ngi ci biir mm-hmm. Nino mi ngi fa Alain mi ngi fa ñu leen bu baax a baax waaye jërëjëf à mami madame Ba nga xamante ne semaine bi yëpp moom moo fas yéene gunge ci li nga xamante xamante ne moom moo di takkaay yi may takk jërë ngeen jëf ba ëllëg incha allah